asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal donc ñu ngi jàkkaarloog euh, Oumar Abdoulaye Ba muy ingénieur euh, de conception nekkoon na fi aussi conseiller spécial à la présidence de la République actuellement mooy directeur général de l' agence sénégalaise de la réforestation et de la de la Grande Muraille Verte donc monsieur Ba ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu say auditeurs ak say téléspectateurs yëpp fu ñu mënta nekk nag. donc euh, mën nañ jàpp ni peut-être c'est la première fois aussi ngay communiquer euh, ci médias yi donc concernant un peu sa agence donc mais ci diggante bi aussi on a vu que y eu euh, avant fait ay quelques problème aussi au niveau du programme xëyu ndaw yi est-ce que mën nga ci ñëw aussi en tant que directeur bu baax a baax xam nga situation bi buñ ko xoolee man bi ma ñëwee ci agence bi dama fekk bu ñu commencé di tàmbali di liggéey ba léegi chaque trois mois la ñuy fayee ko loolu laa fi fekk loolu tamit baax na ñu xam ko Euh, lii nag dafa tombé ci tabaski mu tombé ci tabaski man bi ma ñëwee euh, daanaka système bi mu fekk doyuma euh, ma laajte ñu xoolaat système bi mu yónnee ay nit ñu dem fekk fekk fekk fekk xale yëpp ci terrain bi département yëpp la ñu pour mën a waxtaan ak ñoom pour mën a jël ay yenn seen yenn information pour am base de données boo xam ne base de données bi baax na parce que sama yéene mooy xale yi liggéey ñu fay leen. ñoo xam ne wax dëgg yàlla liggéeyuñu nag euh, ñu xool ban ban ban beneen anam nañ dañuy dañuy dañuy faje mbir mi. Euh, am na ñoo xam ne euh, jóge nañ foofu continuer di liggéey feneen. parce que wax dëgg yàlla bu doon commencé am na ñoo xam ne recruté na leen mais si si diggante bi am na ñoo xam ne jóge nañ fi am na ñoo xam ne ñëwutuñu donc dafa baax ñu xam ñooñu ñoo xam ne intéressé wutu leen ñu xool nan la ñuy leen génnee ci base de données bi loolu am na ci solo. Euh, loolu moo tax ñu ñu ñu ñu dem seeti leen ci terrain bi donc base de données boobu bu ñu indee base de données boobu base de données baa ngi fi yaakaar naa ne que ba deux semaines trois semaines euh, dinañ am euh, idée bu leer ci ñan ñooy nekk ci terrain bi te ñoo ñooy liggéey ñi nga xam ne mun lañ leen continuer di leen di leen di leen di leen jàppale dama fekk tamit situation boo xam ne am na ñoo xam ne toog nañu six mois fayeekuñu am na ñoo xam ne bu ñu commencé ba tey fayeekuñu waaye am na ñoo xam ne trois mois la ñuy toog euh, fayeekuñu donc man sama suñu suñu suñu yéene mooy à partir de mois bii di ñëw euh, ku nekk si ñëw mun a jot sa salaire tous les mois te loolu munoo ko def te amoo euh, base de données boo xam ne daf la leer nekk diw fii lay liggéey diw département bii la nekk diw pépinière bii la nekk boo demee ba xam loolu nag nga doog nga doog doog a fay donc ci diggante mi ne dafa tombé ak tabaski bu mu tombé ak tabaski nag am na ñoo xam ne compte bancaire la ñu am Euh, ci compte bancaire yi mu am si tuuti ay jafe-jafe te ci loolu tamit wax dégg yàlla ñoom tamit bu ñu waxee nekk fay fay fi ñu leen wax nañ dëgg euh, parce que nit tamit boo amee jullit nga nga war a nga tabaski ñëw euh, jotoo sa salaire daf dafa c'est normal nga nga nga nga inquiété wu c'est normal tamit nga nga nga wax nga yuuxu c'est c'est normal bu ma nekkoon si seen situation dinaa def la même chose donc je les comprends parfaitement et je suis en adéquation avec avec ce qu'il pense ah, absolument parce que nit ki tamit bu liggéey dafa war a fayeeko donc de ce fait que euh, situation boobu yëpp ñu maa ngi koy xoolaat te am na ñoo xam ne fay na leen je crois que nous sommes en ce moment à moins de 1 pour cent ñoo xam ne jotaguñu seen salaire te maa ngi maa ngi maa ngi def lu nekk pour ñoom ñu mun a def seen salaire dans les meilleurs délais dans la semaine qui suit dans cette semaine euh, les comptes bancaires je crois que aujourd'hui même ça devait être fixé parce que en réalité ñun bu ñu xasee bu ñu viré amatuñu ci ci pouvoir donc y a des aléas techniques yoo xam ne moom moo waral loolu ñu ngi siy jégalu bu baax mais c'est c'est réglé le deuxième aspect qui est important mooy am na ay numéro yu yu bëri yoo xam ne dañuy déplafonné gul am na ay numéro yu bëri ñoo xam ne euh, gis nañu fi ay jëkkër boo xam ne day tiire xaalisam supprimer message yi jabar ji continuer di di revendiquer fekk jot na donc loolu yëpp am na ci am na ñoo xam ne dañuy rocci seen pièce dugal beneen pièce parce que promotion daa am de ce fait que continuer di revendiquer mais am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañoo déplafonné jotuñu c'est parce que tout simplement base de données bi il faut ñu stabiliser ko euh, ñu xam ne que agence bi mooy recruter donc bu ñu roccee nit di dugal keneen à sa à place tamit ñun ñu yëg ko de ce fait que ñun ñu mën a mën a mën a mën a mën a am base de données boo xam ne elle est donc man sama liggéey bu premier d'abord c'est que am base de données bu cohérente xam ku nekk fu muy liggéey ku nekk nga mën a chaque fin du mois nga jot sa salaire donc wax dëgg yàlla digalu président laa ci jot te digalu ministre ministre ñu ngi jàppale bu baax pour ñu mën am loolu loolu c'est la première priorité ñu sori parce que tout yaa ngi koy wax euh, si sa début kàddu par rapport ak système bi système bi nga fekk ma moo baaxuloon en fait donc euh, mën nañu jot xëy na y avait euh, comment dirais peut-être ñi nga xam ne ay emplois fictifs wala yeneen ak yeneen donc est-ce que mën nga ñu expliquer un peu par rapport à ce système. demewul noonu ni nga ko waxee demewul noonu nu mu demee mooy dafa am nit yoo xam ne intéressé wu na leen au début. mais entre temps ils ont changé de boulot entre temps am na am lu ko gën am nañu tam ay étudiants yoo xam ne intéressé wuute leen am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne euh, ut nañu beneen pexe wala ut nañu beneen liggéey bu gën a baax liggéey liggéey bu ñu yor wala intéressé wuute leen donc ñooñu dafa baax chaque chaque fois ñoom bu ñu génnee ñu xam leen comme ça ñu mën leen génnee ci base de données sinon da ngay continuer di fay koo xam ne liggéeyutul donc loolu dafa am dafa am solo parce que depuis mois d'août 2021 la commencé ba léegi te ñu ngi doog a wàcc ci terrain bi pour vérifier euh, situation bi sur terrain bi donc il faut ñu def mise à jour base de données boobu ba pare nag ñu doog a dem vers vers deux choses première chose paiement mensuel am naa njort am naa yaakaar comme mois bii di ñëw dinañ mën a fay chaque fin du mois loolu benn la deuxièmement te xale yi soxla nañ ko soxla nañ ko te loolu yéene président de la république donc loolu il faut ñu dox ko euh, loolu jaru sax revendication loolu dafa dafa dafa doon si si mission yi yi ma président sas deuxièmement tamit euh, daf dafa dafa baax tamit ñu xam ne que xale yi euh, fii nii ba deux ans dañu leen war a former pour ñu doon des entrepreneurs dans le monde vert donc lii nii warul warul nekk loo xam ne ñoom peren emploi peren la dafa war a doon loo xam ne impulsion la ñun loolu moo tax ñu créer fii benn benn benn centre d'incubation boo xam ne dafa leen di jàppale ñoom ci seen bopp dans un an deux ans ñu am ci métier boo xam ne ñoom dina mën a dundal dundal seen bopp waaw donc donc donc ci loolu la ñu nekk donc euh, euh, mise de mise à jour su suñu base de données la ñu nekk bu ñu defee mise à jour ba pare yaakaaruma mu am problème paiement yaakaaruma ko te mais mais léegi nag il faut il faut xale yi na tamit ñu comprendre mo ñu muñal ñu tuuti ñu muñal ñu le temps ñuy rectifier parce que cas te dama fi fekk 7000 personnes yoo xam ne amuñu répondant ma fekk fi 7000 personnes yoo xam ne mënuñu am bu ñu amee problème amuñu ku ñuy woo téléphone jot ko te loolu yëpp maa ngi koy faj parce que nommé naa 7 personnes yoo xam ne ils sont dans les régions c' est les répondants de xëyu ndaw yi premièrement deuxièmement suñu diggante ak Eaux et Forêts gën na rafet tey boo gisee suñu diggante ak Eaux et Forêts doo xàmmee kan ndax kan mooy ASRGV doo xàmmee kan mooy Eaux et Forêts donc loolu amutul amuloon donc ce fait que daanu ñoon liggéey ensemble loolu loolu jàpp am am am na solo bu baax troisième aspect tamit xale yi lu ñu war a xam mooy donc instant bi nii comme que installé nañu système boobu donc dina am contrôle donc nguur fu muy dugal xaalisam nag wax dëgg yàlla dañuy war a fexe ba koo kooku mun a mun a xëy di di di liggéey norme mais dans de bonnes condition loolu loolu moo waral sax man dama jël si dama jël si sama responsabilité xale yi wax laaju ñu ma ko te kenn sasuma ko mais dama gis ne que président teg na système boo xam ne man war nañu ci mën a profité loolu moo tax ma dem seeti waa bi ma seeti directeur CMI pour mun a am couverture maladie universelle pour xale yi parce que 7000 personnes bu ñuy wàcc ci terrain bi lu nekk mun na ci xew parce que mun nañ ay uti outil la mun lu nekk mun na mun na am loolu moo tax may may ma leen di utal couverture maladie universelle donc euh, ak ak leneen ak yeneen matériel ak yeneen équipement yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, yaakaar naa ne que bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu doo boolee ñun ñëpp suñuy doolee doon benn te xale yi tamit wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu gis wàcc naa si terrain bi gis naa leen demoon naa l'autre jour te tàggoo ma dama ñëw jël sama avion dem wàcc dem Oussouye directement dem naa l'autre Ourossogui tàggaw ma kenn dem naa Ranérou tàggaw ma kenn donc maa ngi maa ngi dem di visiter terrain bi du xam seen condition de travail pour mun leen gën a jàppale mun leen comprendre mais wax dëgg yàlla nit dafa war a fayeeku donc mais nañ ma muñal tuuti rek pour mu mun a régler situation bi yëpp bu bu soobee yàlla ku nekk di nga ko gis sa bopp te ku nekk di nga kontaan. foog naan côté boobu leer na mais aussi euh, après xëyu ndaw gis nañu aussi beneen problème aussi boobu ba léegi gisuñu si nga yàbb ci kàddu par rapport ak euh, un gars génnoon ci médias yi donc euh, di leen accuser donc un ba menacer aussi que il allait se suicider su amul gain de cause donc te bëggoon nañ ci am yow sa version par rapport ak situation boobu. man tamit liir naa ko ci presse ba wax dëgg yàlla ci presse bi laa ko yëgee. bi ma ko yégee nag euh, comme que agence bi tudd nañ ko te agence bi dafa am continuité euh, lépp lu fi directeur général bu fi newoon engagement bu mu mënta jël bu ñëwee engagement bi sama engagement la te dama koy respecter à la lettre parce que parce que continuité la mais bu ma saytoo mbir mi damaa gisul benn trace de contrat damaa gisul benn marché buñ ko passé daanaka mun naa wax nekk benn marché bu fekkee yor na ay kayit yu marché yu ñu yu ñu ko passé soxla naa ko gis. bu fekkee marché bi passé nañ ko man dinaa ko fay mais gisuma benn marché ma convoqué sama cellule passation des marché convoqué sama DRH convoqué sama euh, dirigé sama DAF xool na amul benn kayit bu ko lié ci agence bi euh, léeg-léeg nag am na loo xam ne mun na am sax nekkul sama sama responsabilité mais dinaa ko wax c'est vrai sekk no sekkoon na relation personnelle entre moom ak l'ancien directeur qui est là xamante nañu donc d'après les informations en interne yi yi ma am ci ñoo xam ne xam nañ ko xam nañu am nañu relation kooku sax demoon na ba jàppale ko ah, parce que Ali daf ko bëggoon jàppale Ali ay daat jàppale ko ay génn geen mooy mbuus yu ñuul yooyu yi nga xam ne foofu la ñuy jëmbatee garab yi jàppoon na jàpp jàppal jàppal na jàppale na ko ci ay génn pour mu def production pépinière privée pépinière bi pépinière privée la donc euh, mais contrat d'achat ou passation de marché agence bi dafa war a jënd wala dafa war a fay dara ah gisuma ko ci kayit ci kayit yi mu bàyyi gisuma ko bu ma ko gisoon ma fay ko mais gisuma si. damaa jàpp ne que agence bi yorul ko juróom dërëm te agence bi bu ko yorulee juróom dërëm bu fekkee yoroon si kayit bu fi ne du fi fanaan ma fay ko euh, mënu ma jokkoo ak moom parce que amul benn relation institutionnelle bu ma am ak agence bi waaw bu fekkoon ne sekk nañu marché ma agence bi ak moom sekk na marché maay jël sama téléphone samay fournisseur yëpp xam nañ mm-hmm. képp ku fi ko koo xam ne yoral naa ko xaalis yoral naa ko agence bi yoral na ko xaalis bu fi ñëwee dama koy diligenté te dem naa ba sama cellule dama koy wax publiquement dem naa ba sama cellule passation de marché nee naa ko passation de marché intéressé wu ma li ma intéressé mooy liggéey am résultat parce que loolu lañ ma sas maintenant képp koo xam ne agence bi yoroon na ko yaa maintenant ce qu'il faut savoir c'est que am na ñoo xam ne euh, avant ñuy dissoudre agence ANEV avant ñuy dissoudre Ecovillage boole leen def ko AG ASRGMV am na ñoo xam ne créance amoon na fi mais loolu créance yoo xam ne yóbbu nañ ko si agence judiciaire de l'État parce que loolu si agence yeneen yi loolu loolu wax dëgg yàlla aw ma ci pexe mais lépp loo xam ne depuis création de cette agence képp koo xam ne agence bi yoral na ko bu fi ñëwee nag kayit yu fi yu fi am ma vérifier ko lépp jaar na yoon man aw ma ci benn problème voilà parce que état moo jël engagement état moo koy fay te fii nii maa ngi représenté état donc damay assumer samay responsabilité ci loolu